xawa a doy waar balaa ma si dugg damay rappeler rek ni man def naa quarante ans à l'université léegi maa ngi maa la retraite donc <laughs> macha allah les jeunes nekkatuñu sur le même euh, terrain mm-hmm. voilà donc nekkoon naa fi laa nekk étudiant mm-hmm. nekk fi syndicaliste nekk fi enseignant donc euh, jàngiwu feneen fu université Dakar euh, dem ma feneen jàngiwu à l'extérieur ñu ñaari tur fi laa jàngee ba ex donc université am na tuuti lu ma si xam <laughs> mais li ma bëgg a wax d'abord mooy euh, ñun suñu temps dañ doon séparer li ñuy wax léegi campus pédagogique ak campus social parce que campus social sax terme bi ce n'est pas très approprié mais bon <laughs> dafa dugg dans les affaires parce que c'est pas un campus c'est un lieu d'habitation mm-hmm. voilà lieu d'habitation la mais bon depuis euh, dugg na dañu daan séparé. ok ce qui veut dire que campus li wax campus pédagogique ñu dem def seen di cours seen euh, recherche tout cela à part et COUD. Mhm. ak yeneen yi ñu nekk dans les autres universités di gérer li ñu accueillir étudiants yi leen di restaurer leen di faje mhm. donc c'était ça le problème maintenant il fallait ñu def en sorte que mu am une corrélation campus social bi ou campus pédagogique bi bañ a nekk en décalage par rapport au campus euh, social donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ daan def mais léegi il s'est trouvé que étudiants yi à l'heure actuelle considère que affaire dañ ko war a noonu euh, la ko mën a encore euh, boole ko fusionner veut dire que <laughs> fusionner ce qui veut dire que su campus social UB campus plutôt pédagogique UB campus social war na ubbi mhm. kooku nag réalité université yi la parce que actuellement il plus de cent mille étudiants je crois suma juumul il y a pas assez de <laughs> lits au niveau de l'université il y a pas assez aussi de restaurants pour la restauration ensuite il y a beaucoup d'étudiants yi nga xam dañu jóge ci euh, yenn région yi mhm. su ñëwee Dakar du ñu am fu ñu dal et tout ça mhm. dañu soxla egsi fu fu ñu dëkk loolu mooy expliquer situation bi nga xam ne moom la ñu vivre et man ma comprendre ko mhm. parce que temps bi bi mu commencé di développer yooyu la étudiants yi doon poser c'est parce que soo nekkul dans condition yoo xam ni daa mën a toog am tranquillité d'esprit pour jàng li ngay jàng du dugg li ngay jàng du dugg donc il fallait nga def maintenant beneen aspect mooy que université bi amul ces moyen la et difficulté bi mooy effort yi ñuy def yëpp dafay limité parce que chaque année mhm. nombre bacheliers yi dafay augmenter et capacité yi doyul mhm. donc so université moom moo bloqué en réalité université moo bloqué depuis longtemps depuis longtemps et kenn réfléchirul peut-être si des solutions exemple solution alternative yi gen di étudiants yi di proposer ay solution à court terme la ko mhm. li ma yaakaar man personnellement mooy dañu waral am ay solution à long terme. terme vraiment des solutions structurelles pour que université bi ñu mën ko defaraat autrement quoi mais su continuer nii amoon mon avis personnel si euh, kii la jëm si blocage la jëm ndax nag étudiants yi je les je les comprends moi j'étais étudiant comme ni ma ko waxee <laughs> ma ma ma wax euh, ma jeune <laughs> fils là que amicale yi bi ñu koy créé fac de droit la koy créé bokkoon naa si ñi nga xam ne ñoo doon xeex pour ñu créer amicale yi. c'était en 1977 1977 en parenthèse voilà.